waaw di rafetlu seen teewaay ci tënk rek Teranga Movie Awards euh, mi ngi nekk euh, cérémonie boo xamante ne li ko tax a jóg mooy sargal ñi nga xamante ne ñooy def cinéma euh, fii ci Sénégal waaye itam ci Afrique ak ci diaspora bi donc ñu ngi toll ci deuxième édition bi ñu di ko tàmbali le 23 juin. ba le 3 juillet 3 juillet bi nag mu nar a nekk cérémonie officielle bu mag bi bi nga xamante ne moom la ñuy sargal euh, acteurs yi techniciens yi ak ñi nga xamante ne jot nañ fi def ay jé jéego yu mag ci wàllu cinéma euh, donc euh, ñu ngi commencé activité yi sam mercredi 23 juin par benn vernissage exposition bu ñu jagleel cinéaste sénégalais boobu ñuy wax Ababacar Samba Maxaram mi nga xamante ne daf teel a jóge waaye bokk na ci nga xamante ne ñoo tax tey cinéma cinéma africain am doole bokk na ci membre fondateur u FESPACO donc dafa amoon solo tey bu ñuy def euh, événement bu mel nii ñu mettre en avant tamit figure yi nga xamante ne ñoo tax ñoo ñoo ñoo yombal yoon bi donc voilà euh, si Teranga Movie Awards ren euh, programme yu mag yi mooy exposition bi du 23 juin au 2 juillet public bi étudiants yi ak ñëpp yi nga xamante ne bëgg nañ cinéma mën nañ ko fi fekk fii Grand Théâtre de Dakar Euh, loolu 23 juin lay doon ba 2 juillet euh, dinañ amal foire des métier du cinéma pour gën yaatal suñu métier bi fexe ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xam ne sopp nañ ko bëgg nañ ko wala bëgg nañ ci xam dara dinañ euh, ci gën a mën a gëstu wax ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si métier bi ñu jeexale ko nag ak cérémonie bu mag boobu ñuy wax Teranga Movie Awards te ñuy wax ku ci nekk boo ci amee soppe ci série yi ci film yi nga ñëw sañse c'est sur invitation ñëw sañse délégation ñëw soutenir leen ndax euh, lu am solo la pour suñu réew lu am solo la pour suñu culture. activité bi nan ngeen fas yéene jàppale acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy tourné ci série yi nga xam ne ñoom mhm. de temps en temps dañuy génn di ñaxtu rek ci réseaux sociaux yi di wax seen wàllum payoor. dëgg la condition de travail ak yooyu. dëgg la nan ngeen mën a def au delà épidémie balaa lii yëpp sax di ñëw ñun daaw balaa corona bi di ñëw di di di di baare activité yi amaloon nañ fee ci monument de la renaissance benn résidence artistique boo xamante ne formé nañ ci 80 personnes muy ay ay jeunes réalisateurs acteurs producteurs euh, ci métier cinéma donc daf lay wan rek ne ñun wàllu wàllu jàngale bi ak wàllu euh, développement on va dire développement des connaissances daf ñu amal solo balaa lii yëpp di ñëw ren nag ñu ngi amal di woo di profité waale ci lii di woo ñëpp ñi nga xamante ne jotuñu leen jot ci benn daje bu mag bu ñuy am euh, entre acteurs yi ak euh, ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa ci wàllu liggéey bi Euh, ci wàllu métier bi muy euh, direction de la cinématographie muy ministère de la culture muy ministère du travail ba nga xamante ne bëgg nañ buñ ci génnee euh, wax ay base yu leer ak fàttewuñu tamit SODAV mi nga xamante ne moo waa yor suñu wàllu droit ñu am loo xamante ne dinañu mën a situer ci lépp loo xam ne mooy suñu statut statut de l'artiste statut de l'auteur ba nga xamante ne fii ak ay at yi di ñëw xëy na dina néew li ñuy dégg acteur buy ñaxtu wala ku ñuy defal ak yu mel noonu. Hmm, lan lañ mën a xaarandi tey jii si événement bi. ci ban wàll. Oh, ci wàllum résultat lan lañ ci mën a xaarandi. li li ñu ci bëgg ñun ci li ñu ci gën a amal solo mooy euh, à travers événement bi euh, image bu Sénégal nekk vraiment image bu rayonnante euh, soxla nañ ko defe naa après année corona bu bi nga xamante ne ñun ñëpp a ko bokkandoo bëgg nañ itam fexe ba dajale. Euh, njabootu cinéma bi njabootu audiovisuel bi bëgg nañu fexe ba nga xamante ne dina nekk euh, dinañ jóge fii am ay piste de réflexion yi nga xamante ne suñu métier bi dinañ ci mën a jàppan jàppandiku baal ma ci borof bi <laughs> dinañ ci mën a sukkandiku ba nga xamante ne euh, yoon bi dina gën a leer loolu daal moo ñu tax a jóg ñun association cinéma 221 te mooy suñu mébét te loolu la ñu am yéene Euh, waaw donc euh, ren dinañ joxe déjà ñun ñu ngi am lu mat ñetti catégorie officielle ak benn catégorie ba nga xam ne que ni sélection vote du public la donc catégorie première catégorie officielle bi mooy euh, long métrage sénégalais yi donc foofu ñu am fa ñetti prix meilleur film fiction Sénégal film bi ñu gën a ràññee documentaire Sénégal ak raayaw kii réalisateur bi gën a ràññee ràññeeku ci ci ci at bi ci Sénégal donc boobu mooy catégorie bu njëkk bi après dina am deuxième catégorie ba nga xam ne que ni mooy série longue yi série yu gudd yi yi nga xam ne 26 minutes lay durée jëm kaw et foofu dinañ am ay prix yoo xam ne nii pour techniciens yi la ak prix yoo xam ne nii pour acteurs yi la par exemple prix acteurs yi dina am euh, acteur bu góor bi gën a ràññeeku ci at bi acteur bu jigéen bi gën a ràññeeku ci at bi euh, acteur bu góor bi def second rôle bi gën a ràññeeku acteur bu jigéen bu def second rôle bu gën a ràññeeku ak prix révélation si si catégorie série boobu noonu techniciens yi dinañ am prix meilleure image dinañ am prix meilleur son am foofu prix euh, meilleur déco meilleur costume meilleur maquillage euh, bu ñu génnee ci catégorie boobu mu des catégorie série courte mooy série yu gën a gàtt yi ñu ñu ràññee ci ren nag bu baax série yi tur yi ñu tourné ci koor gi parce que moom moo ëpp ci catégorie boobu donc foofu aussi day am euh, prix meilleure série bu bu gën a gàtt ak prix espoir donc yooyu mooy nekk raaya yi nekk ci catégorie boobu maintenant bu ñu génnee foofu dina am catégorie vote du public mooy euh, public bi li muy dem di voter sur Acrociné pour euh, maanaam euh, tabb ñetti film yi ñu gën a apprécier ci année bi et donc ñetti film yooyu noonu euh, dinañ am donc le grand prix grand prix du public am deuxième prix du public ak mais bu ñu génnee loolu Côte d'Ivoire mi dëkk bi ñu invité ren ci suñu événement bi dinañ leen jox ñetti prix donc ñetti film yu ñu fa sélectionné nga xam ne dañ leen di jox ay prix à titre honorifique mais dina am aussi juróom benn nit ya nga xam ne que nii dañ doon yëngu ci cinéma bi ñu ngi ci léegi sax mais maanaam seen liggéey ci wàllum cinéma rëy ne que nii ñu gis ne mérité nañ ñu jox leen ay raaya ku ci mel ni Souleymane Cissé donte ne du sénégalais mais tey mun nañ ne moom moo mag ci cinéaste yi nekk di dund euh, ensuite dinañ am euh, euh, par par Abdelaziz Boye nga xam ne moom moo créé ciné banlieue ak ciné UCAD tey techniciens yu bëri yi nekk ci métier bi ñoom ñoom moom moo leen formé man donc dama ciy boole sama bopp donc boobu c'est à titre posthume vraiment après dina am Fatou Kandé Senghor nga xam ne moom tamit ràññeeku actrice réalisatrice photographe artiste de manière générale euh, dina am aussi prix pour euh, Rama Diagne ak tata Marie leen Diallo ak ibrahim Mbaye Thié ñu nekk ay acteurs yi nga xam ne que ni kenn dootul leen présenté te kenn dootul euh, naataale aussi seen liggéey ci wàllum aar macha allah.